dal leen ak jàmm te nag dañuy ñëw ci suñu dëkkandoo yi nga xam ne moo di Mali ki nga xam ne mooy premier ministre malien bi nga xam ne mi ngi tudd Choguel Maïga moom nag jamono ji ñuy wax ak yéen dañ ko entré benn clinique bu nekk Bamako foofu nga xam ne fa lañ koy fajee ndax liñ naan AVC mooy accident vasculaire cérébral da koo dikkaloon xibaar bii nag ëttu yëglekaay bii ñu naan Jeune Afrique moo ko xamle ki nga xam ne moo am juróom benn fukki ak ñeent nekk njiitu jëwri ni ci njiitu Mali te muy Choguel Maïga clinique biñ naan Pasteur te mu nekk ca biir Bamako mooy saytu jamono jii ñuy wax ak yéen li nga xam ne mooy état de santé xibaar bii nag danañ ci dëkkaat ci nu mu gën a yaatoo jaa ngeen jëf.